bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ci wàllu xaralayu seen mbokk Serigne Mbacke Sylla Sud FM seen rajo ci seen jotaayu tafsir nañ defal ajuma jot waxtu dellusi na dinañ ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw bi ñu santee sunu borom subhanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam jàmm ci réew mi ak ko wër jéggalu Serigne euh, soxna yi euh, ni ñu koy baaxoo ji defee maag seen mbokk Serigne Mbacke bu nu doxalew saar ba jeexal ko nu ñëw nag toog ànd ak yéen njataay bi ngeen bokk ci nu bokk ci Serigne Mbacke bi yéen nag xam nga ne ñu ngi ko tàmbali woon le 16 décembre 2016 jeexal ko le 19 tey ci octobre 2018 jàpp naa ne ñaari at yi xaw naa teg ñu door a jeexal ci saaru ñu wax alfath fas bu ba ajjumaa ñu dugg ci alxujuraat waaye balaa boobu nañ koy baaxoo ginnaaw euh, nuyoo ak yooyu gërëm sunu partenaires yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun ci tafsir bi tàmbalee ko ci lobbu gaas maam jaara tàmbalee ko ci seen karokar xaadim tàmbalee ko ci boisson pëns tàmbalee ko ci tàngal bii di tàngal bége moom tam ak euh, ma ndox mi nga xam ne mooy waalo jeexal nañ nag suratu al-Fath euh, ak ni mu tëddee ak fi ko sunu borom tabaaraka taala euh, ak yi nga xam ne mooy ci aju yépp waaye ca jeexlu ba nag nu yàggoon lool ci sa ay ju mujj ja ay 29 ñu tàmbale woon ci muhammadun rasulullah ba jeexal saar wa te tegoon ci wala sina maahu ñu doon jéem a ànd ak auditeurs yeeg yëpp nag ak way déglu ci biir réew ci ci tiim réew ci siira bi yonent bi alayhi salaatu salaam ndax suñu borom daf ko jox ni muhammadun rasulullah te xam nga ne lim tudd aw tur ci alxuraan moom bëriwul mu tax bi mu ko tuddee nag ñu doon topp dundam gi tàmbalee ko ca Makka topp ko ba ma Madina fu dund gi jaar ñu jéem faa jaar eh, tabarkalaw cib tënk nag ndax buñ ko tënkatoon boo muy mën nañ cee dund juróom-benn at jàpp juróom-ñaar at ñu door ko jeexal ndax dunduk ñaar fukki at ak ñett ku ko tënk ci ñaari at xam nga ne xaw ngaa rëppatal euh, moo tax tabarkàlla mu demee ni mu demee kon nag euh, suratul Fatih jeex na ñi daan déglu léeg-léeg am ku ne man nangam laa ci jàpp am ku ne man aaya sàngam nangam am ku ne man aaya sàngam nangam kon nag 15 euh, heures jot na ba tekk juróom-ñetti simili sëñ Mbacke ñu daal di ñu ànd ak auditeurs yi ci ni ko daan ànd ak ñoom. am na solo oustaz jërëjëf xam naa ah. bala ñoo jël auditeurs yi ndax man kenn laa daan nekk ci ñoom <laughs> soo fàttalikoo ñu bëree bëri ci jotaay bii lañ ma gënoon a xamee. wallaay ndeysaan laataa sama dikk ci rajo bi mooy bu saar masaana jeex ma bokk ci ñi nga xam dañuy woote wax li ma ci jàngi. lu wér nga wax. defoon naa ko sóoratu nisaa bu njëkk ba ak maayida ak an'am yëpp benn bu ne la ma ci jàppoon ba nëgë ni <laughs> <laughs> moom Muhammadu Rasulullah bi moom dana marqué ñu bëree noonu ba taxaw ci oustaz noo daan waajale émission yi diggante tafsir ak siiraan diggante boobu noo ko daan waajalee diggante tafsir ak siira siira tafsir moom danaa xam ne damay jël ci aaya vingt-neuf bu dee ci siira bi nag foog ma xool fi ma toll nii ndax ci xare laa toll ndax ci réunion laa toll ndax ci gàddaay laa toll ndax ci reñaan laa toll su ko defee su ma demee jël téer bi mel ni Rayhul Maktum mhm. siiratu ibnu Hisham jël téere bu mel ni fiqhu siira mm-hmm. jël téere bi mel ni xilaasu zahab bi mm-hmm. dajale lépp seet tey ji lu ma ci mën a jukki ma jukki ko ci ñëw mm-hmm. digtal ko auditeurs yi wutiwaat beneen moo tax su ma masaan jóge fii vendredi mm. samedi laay noppali dimanche lundi ma commencé préparer tafsir yu jël mm. tafsir vendredi tubarkàlla mm. loolu am na solo waaye oustaz bu ñu seetloo ni saar wi tëdde nga xam ne muhammadu rasulullah wax nga ne li ko suñu borom tudd ci alxuraan bëriwul mm-hmm. tàmbali na niñ tegalee téere bi ca kaw ba agsi ci saar yu ndaw yi tàmbali caa jëm suratul fatxi door faa dugal aw turam mm-hmm. foofu ban sew-sew la am ba muhammadu rasulullah nekk ci biir suratul fatxi waaw sew-sew bi mu am mooy euh, alxuraan li féet li li jóge foofu jëm kaw li muy defar bokkut ak li jóge foofu jëm suuf li muy defar euh, li jóge foofu jëm suuf li muy defar mooy day fas yéene nag dugg léegi ci defar jikko defar diggante yi defar sëy yi indi fi saar wu tudd suratul nisaa gu ndaw loolu moo moo tax mu ñëw fii daal ni muhammad rasulullah war ñu wala sina maahu waaye soo seetloo bi mu ne muhammad rasulullah wala sina maahu hmm. saar bi ciy tege muy xujuraat xujuraat soo ko dee seetlu waaw waaw day daal ñëw indi jàngal ñu teggi ñu war a am suñu diggante ak Muhammad moomu nga xam ne bi mu waxee Muhammad Rasulullah yow ci nga dégg ne war nañoo xam kuy Muhammad nga taxawoon ci di ñu ko jàngal très bien ba bu ñëwee ci xujuraat waaw teggi ni ñu ko jox rek ne des na est-ce que est-ce que waaw wala si hmm. mooy teggi ni may wax ne nag hmm. lu ngeen ko jox des na hmm. ay gaay yi ñu ko joxoon ba mu sukk lu am solo la oustaz waaw foofu am na sew-sew yu xóot yu doy damay bañ a auditeurs yi ndax li ma ci yor ci ay laaj ci tafsir bi day bari lool ma may leen sens ñu jokkoo ak yow ndax jotaay bi seenub jotaay la te namm nañ la ñu ngi fëgg boor bu ne <laughs> incha allah kon dama lay daal di jox kenn ñi nii d'accord mbokk mi asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatu bisimilah alaaji oustaz maa ngi la koy delloo di bëcc sa liggéey bu baax naka waa daaru ñu ngi lay nuyu di la ziar. bisimilah waaw. waaw tey manqué ngeen ci tudd waaye fi ngeen nekkoon jar na ko. waaw alhamdulilah. <laughs> ñu ngi bëgg nag ni ngeen ni ngeen ni ngeen traité aayam nag. waaw sang-sang yi moom ñu ngi ko traité aayam bi wax dëgg yàlla moom dinañ ci wax. alhamdulilah. ñooñu gën a marqué wax dëgg yàlla. jërëjëf jërëjëf. tombeeg ñuy waajal dem ci màggal gi nii wax dëgg yàlla. ndeysaan. ah kon ñoo ngi sant bu baax di la ci bëgg yàlla bu baax baax jërëjëf jërëjëf Alaaji Mbay jërëjëf jërëjëf na amin ñu bokk kon mbokk mi noonu Alaaji Mbay mi ngi woote daaru cubu nee na siira bi liñ ci doon def jàpp na ko ci mbokk mi asalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah bismillah waaw noo tudd nga ne Sadio Ka Sadio Ka waa Kër Massar tabaarakallah Sadio bisimilah yaa ngi doon topp ci tafsir bi. ñu ngi lay nuyu di ziar di ziar Oustaz Alioune Oustaz Alioune Mbaye Oustaz. dëgg la dëgg la ñu ngi ñu ngi lay fay ñu ñoom ñëpp. tur bi ay at yu yàgg tabaarakallah man ko. jërëjëf. incha allah man nag ñu ngi saari ñoom. waaw. léegi si suñu borom bi wax naa bariwul bi jami satan rajim. Mhm. inna alladina yubayiunaka innama yubayuna allah. ndeysaan ndeysaan. yàlla yàlla bi. képp boo xamante ne jëflante nag yow rek. waaw ndax man man la jëfandikoo. ndeysaan inna la siin yu bàyyi unaka. yàlla def faral yoon bi macha allah. ndeysaan ndeysaan. loolu laa ci jaar teewoon. jërëjëf jërëjëf. alhamdulilah bi tamit tabaarakallah jàpp naa ko. alhamdulilah. amiin kon sëñ Mbàkke kooku nee na mi ngi tudd Sadio Ka mi ngi Kër Massar lim ci gën a jàpp mooy fa ñuy toll ci inna la siin yu bàyyi unaka innamaa yu bàyyi unallah jërëjëf ñu xaar keneen ci yoon wi tabarakallahu salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah. Oustaz Alioune Sall. waaw fixe. sa taalibi Babacar Diop bu dëkk. na nga def waay mbaa yaa ngi am jàmm. bu baax a baax Oustaz. waa kay jërëjëf. di nuyu Oustaz Mbacke Sylla. dana ko mi ngi li mu ngi di wax yàlla nañ dugg ci xujuraat bisimilah rahmaani rahiim jën la ko jeexale ko ci alhamdulilah rabbil alamin. amiin waaw di wax euh, saar bi moom lépp moo marqué. ndeysaan. rawatina innaa fatahnaa laka fathan mubiinan. ca tàmbali ba. waaw ca tàmbali ba ak yàlla dinaan wa yansurakallaahu nasran aziizan. ndeysaan bi. ndeysaan la ko yàlla defal amin amin ñu bokk wa yansurakallaahu nasran azizan boobu yàlla wax ah. oustaz yàlla na ko yàlla defal waaye amin ñu bokk waaye ngir ñëpp kontaan nañ joxum ba jërëjëf damay ba ñu lim waaye ñëpp kontaan nañ ci yow merci beaucoup merci beaucoup moo sedd moo tax mënu maa wax jërëjëf jërëjëf jërëjëf oustaz ñu ma Mbàkke bu baax baax Mbàkke ngi lay dégg tabarakallah Babacar joxum pour tëngëj lay wootee nee na inaa fatahnaa laka fathan mubiinaa tabarakallah ca tàmbali ba neex na ko mbokk bi asalaamaaleykum waaleykum salaam waaw waaw. ñu ngi lay delloo siyaar fooy wootee. Ablaye Touré Ndiarème Mbacke. Ablaye naka waa Ndiarème. ñu ngi bu baax. tabaarakallah ngi sant bu baax a baax. ana Saas Mbacke. mi ngi di déglu. ñu ngi ci jàmm. ñu ngi aaya bu mujj rek moo ñu moo ñu gën a frappé nag. ah ndeysaan. parce que li fi mu tàmbalee nag dafa xaw a wuteeg ñun ni ñu doxalee léegi. waaw. comme ñoo dañoo bëggante ba pare yërmande seen biir. waaw. léegi nag da waa ji wax nga lu am solo de loolu daal moom si gën a daal yow daal wax nga lu am solo ashiddaaw alal kuffaari rohamaa baynahum waaw kay waaw waaw marqué nañu trop ndeysaan jërëjëf ko yàlla defal ñun ñëpp ñu am na solo am na solo jërëjëf Ablaye Touré dëkkandoom sëñ Mbàkke si la ca Jurbel mi ngi ànd ak ñun jotaay bi nee na waaye daal ashiddaa'u alal kuffaar ruhamaa'u baynahum nee na ba sañoon ñun ñëpp ñu mel ko daa mel ni am na kenn ku ne ci yoon wi salaamaaleykum waaw kon kooku ma ngay wàcc takk ay bagaasam fas yéene ñëw tabarkalla ma nga ne la di jël taxi pour ñëw 15 heures moo jot ba te 15 minutes fii ci Sud FM seen rajo mbokk bi salaamaaleykum. waaleykum salaam yow waaw. xaritu Mbàkke. xaritu Mbàkke na nga def. ah euh, xaritu Mbàkke dana dellu siwaat incha allah ndax desal nañ lu war a mat quarante cinq minutes ci suñu kanam yooyu xaritu Mbàkke mën na ci ñëw asalaamaaleykum mbokk mi. maaleykum salaam. Mm-hmm. ngi lay delloo nuyoo. di la bëggee bu baax di sant nag bu baax. fooy wootee. maa ngi wootee parcelle. parcelle. waaw man nag daa am lu ma ci jàpp. waaw léeg-léeg sax dama koy waxtaan su ma doonee sama xarit yi ma Sénégal dañuy roy ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bariwul. Hmm. ndax da ngay gis nit ñi moom fi ko yàlla jaaralee jëpp allahu akbar ci dundam ñu mhm. xam nga mu takk koo xam ne dafa amoon xaalis mhm. yàlla def mu dem ba yoratul dara fi mu ne loolu bu dalee nit ñi ci Sénégal rek dañ naan kii dañ koy aggaafal wala ñu lu nekk ñu te ko cëy wallaay ndeysaan xoolee ci Muhammad rek fi mu jaar yëpp sallallahu alayhi yàlla jaarale ba mu nekkee gune mhm. ba muy nekk mag nga xam ne ay waajuram ak ci côté yëpp nga xam ne kon moom même bu dul diine rek yàlla dafaa jël mu nekk exemple. ci exemple bu bu leer naa ñu. waaw loola loola tax siira jóg. waaw fi mu ne looy gaafal nit rek. Mhm. bu ma xoolee ci yonent bi nga xam ne kii nii yàlla indiwu ko fi pour yow pour neen. ndeysaan indiwu ko fi ci bànneexu bakkanam indiwu ko ci pour mu dund bànneex. lu am solo nga wax. Sénégal nit ñi war nañ di roy bu baax a baax a baax balaa ñuy gaafal nit wala ñu koy wax dara rek war nañu xool bu baax ci Muhammadu Rasulullah fi ka yàlla jaarale. tabaarakallahu tabaarakallahu nga xam ne bu amee doom. yàlla jël doom ji mu teg ko amoon xaalis yàlla def kooku yoratul dara teewul lépp rek mu nekk exemple wallaay ndeysaan man nag li ma ci gën a jàng nag loolu laa mooy keroog ba mu waree dugg Màkka mhm. ànd ak ay nit ñu bari ay saabaam yëpp mhm. ñu ne ko doo dugg te teewul bañ ne xaa doo dugg daa moom lañ wax eh, moom mu wëlbatiku ñibbi waaw moom mu wëlbatiku ñibbi ci xoolal dayo bi ko yàlla jox rek nga xam ne foofu rek ba léegi rek exemplaire la même bu dul diine sax ci mat gi mu mat rek ak mbooloo gi mu jiite woon rek ñu ne ko yow doo dugg mu ne leen waaw. waaw yow li nga li nga jàng ci saar bi am na solo. wallaahi te yow te ba déwén jotee dafa ñëwaat ànd ak ñooñu te ke billaahi man keroog damaa seetaan ba ba mu dugg biir Màkka. waaw ba mu waxee ne ku dugg kër am na benn sa benn ah, kii. bu ma ko Abu Sufyaan ku dugg Abu Sufyaan. keroog ba mu ko waxee ka lekkoon xolu Hamza bi lenn rek la jàngat ci loolu dana Muhammad de la mu waxoon def na ko. waaw loolu rek mu ne ko la mu waxoon def na ko. dëgg na képp ku dugg sa biir kër sauvé dëgg la kon nga xool Mouhamed kàddoom yooyu rek. sallallahu alayhi wa bu baax nag mais nit a roy incha allah incha allah jërëjëf mbokk moomu tabarakallah di woote parcelle lim fi mu dugg am na solo lool lim fàttali am na solo mbokk mi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah. Sa Alioune Sall. waaw. waaw kii sa soppe la Xaadim Xaadim na def. maa ngi sant bu baax a di mu fay wootee. maa ngi wootee Medina. waaw. Euh, ñu ngi ziar bu baax di rafetlu euh, waxtaan bi. ndeysaan ndeysaan. Euh, tamit li ci li jot a jàll am na solo lool. ndeysaan ndeysaan. ndax man mi wax ak yow am na lu ma jàng ci tafsir boobu. waaw. muy ci foofu mbokk mi génn daaneele. waaw. foofu laa koy sose ndax mooy pacte boobu pacte bi ñu signé woon. saan nga xam ni pacte bi ay avantage rek ci ne ñeel ñeel jullit ñi waaye booba jullit ñi gisuñu ko. waaw. ñoom gis nañ ni rek eh, néew doole tax ñu ñu eh, tëral pacte boobu ben bi leen. est-ce que est-ce que est-ce dañoo dañoo gis ni pacte bi ndekete woo ñoom seeni avantage moo ci nekk. dëgg Euh, foofu daal man gis naa jàngat boobu muy nekk euh, foofu jàng naa fi ni am kilifa baax na lool lool lool. lool lool lool am kilifa euh, déggal sa kilifa baax na lool. dëgg yàlla. jërëjëf Xaadim am na solo lool ñu ngi ziare ñëpp am na seen benn mbokk fii itam dañuy diglu sama benn papa Baye Gora. waaw moom chaque jour wax dëgg yàlla yéen rek lay diglu. nil ñu Baye Gora. waaw kay. jërëjëf. <laughs> kon ñu ngi nuyu waa ñu ngi nuyu Baye Gora di nuyu waa Medina yëpp tabarakallahu mbokk mi daal bëgg a bokk asalaamaaleykum. asalaamaaleykum rahmatullah ahlan bisimilah waaw sa Alioune waaw. kii de Daouda Diop lañ koy wax. Daouda dafay wote. dëkk Grand Standing Thiès. ah Daouda wax nga dëgg de ana maire. góor gi Diop ak Maimouna Dieng. ana maire. maire mu ngi lay nuyu lu bare bëri. ñu ngi kontaan ci tafsir bi. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. man de li ma si jàngee. Ah. mooy ba nga koy tàmbali ni affaire bi de di nga si def ñaari at. <laughs> damaa mel ni ku xawoon a découragé. ndeysaan. ma ne ñun te ñu woon a doyloo gàmm yi rek parce que gàmm yi dañ si waxtaanee yonent bi salaahu salaam. ndeysaan. waaye bi ak ni nga koy waxee. yàlla xam na ne man day mel damaa toog rek di seetaan film. allahu akbar. damaa mel ni ku toog rek di seetaan film. cey. léegi nag loolu dafa ñoo yokk bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam. allahu akbar yéen fi da nga koy gis ay coonoom ni ko yàlla yàlla tege ay nattu. waay waay waay waaye di ko surmonté di ko surmonté ba àgg fi mu àgg. waay daaw de tabaarkalla la ñun ñii ah man de am na loo xam ne yonent moo ñu ko santoon sax nag. sallallahu alayhi wasallam bu ngeen di ñaan àjjana ñaan leen firdaws. waaw waaye man li yonent bi daj ak ñoom Abubakar ak nit ñu baax ñooñu man man rus na maa ñaan <laughs> yàlla naa dem àjjana rek waaye daal moom firdaws moom xam naa ne nañ ko bàyyi ak yonente beeg nit ñu baax ñooñu suñ na solo kat kontaan nañ lool maa ngi ko nuyu bi soxna Dieng mooy kooku nga xam ne saa ma demee Thiès dana danaa ma jox parfum maanaam saa bu ma demee Thiès ba mu gis ma rek am naa parfum mooy mooy yaayu kii di woote nii tubaarkàlla ah, ah, ah, mooy yaayu kii leen di waaj a ñëw asalaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah. Oustaz Alioune Sall. waaw. sa ndongo Ahmad Sakhir wax nga dëgg de. kay tubaarkalla. ah waay Oustaz kontaan nañ de. waaye Ahmed Sakhir raw na fi. ah waay Oustaz yàlla na yàlla nangu lépp rek. allahumma amin waaye gis nga siimaahum fi wujuuhihim jooja. muy waaw. laa ilaaha illallah man de suñ ko moom ma ko dégloo. waaw. ci xam baax baax lu doon xam solo. waaw baax baax lu am solo. baax baax lu ba xëy baax rek. waaw waaw baax baax lu ba xëy baax rek. ci ay wàjjile. waaw waaw moo waraloon lépp nag. ndeysaan. ba ci sunu mag ñeeg rek. lu wér nga wax. siimaahum fi wujuhihim jooju rek. siimaahum fi wujuhihim. wallaahi waaw tabaarkalla tabaarkalla. awaay sëñ bi yàlla na yàlla doole guddal fan bi. mbay amin amin yàlla na yàlla doole wéral cër yi. amin mbay amin dëgg yàlla daal macha allah ñun nag say ndongal say taalibe. waa ci lu wér loolu kay kenn wérantewu ko. <laughs> ñi xam ni mu demee ñëpp kenn wérantewu ko. jërëjëf Sall jërëjëf Sall. Xaji kii mooy sëñ Ahmed Sakhir mbay bi may jàngali Louga dañoo bokkoon ca tuut tànk yi ma daan jàngal. di leen yor euh, ci al adab al arab yi di leen yor nusus ak euh, riyaadiyaat ci laa leen yoroon macha allah ñu doon xale yu jàmbaare léegi mi ngi nekk ci grande mosquée fa la yor bureau jiite njàng ma fa tabarkàlla mbokk mi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah. Moussa ziar naa la Moussa Diallo Sanna. Eh, Moussa def. ñu bu baax a baax tabarkàlla la ñaanal. yàlla na yàlla na mu ñaan yi. at yu tolloog tafsir boo jot rek saar woo jot rek at yoo ci def yàlla na ko sunu borom yokk see. allahu akbar amin. yaa Oustaz Mbacke ak Oustaz euh, Alioune Mbaye. amin. wallahi la azim fierté l'islam ngeen. alhamdulilah rabbil alamin. ndaxte tey fi ñu toll ci safar. Mhm. Sëriñ Touba bu ko yàlla defoon mu ñëwaat. Mhm. yéen lay jiital. sëy wala boog di ngeen ci bokk. allahu akbar. ndaxte tey sama yaram dafa daw. ndax safar bi ngeen def. ndeysaan. dama ko suivre ba mu jeex tal allahu akbar wallahi lazim gëm nañ la gëm nañ la gën muñ la tubaarkàlla euh, mun naa ni tafsir bi man muhammadu rasulullah mhm. ko tolloo sallallahu alayhi wa dama ci def ay jàngat ndeysaan mhm. jërëjëf Moussa Diallo Sànnaar xam naa dina jël siwaat ndax dese nañu lu war a mat euh, trente huit minutes wala lu ko jege kon dina jéem a ñëwaat incha allah mu Sànnaar la nekk ca sunu mbokk ma Samba Diagne liberté guy dagg paas mbaa Samba Diagne dagg ko mbokk mi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam waaw. man de Mamadou Diagne Wakaam. <laughs> sama xarit na nga def. <laughs> xoolal kii moom yëmu ci déglu tafsir moom. ma yàgg parce que <laughs> xam naa loolu. mbir mi mbir mi yàgg lool waaye. waaw ndeysaan ma xamal la loolu. gëm naa loolu. li ñaan ba ma ñaanul rek laay ñaanaat. yal na leen yàlla dimbali ngeen am seen télévision. amiin. waaw. amiin Diagne amiin. foofu laa yem jërëjëf yal na leen yàlla taxaw. amiin amiin sëñ Mbacke kii moom yemul ci di déglu da koy enregistré collé wax ji ak aaye ji génn ko ci kaset yët la moom moom noonu noonu la koy def am ah, mbokk bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum Oustaz. waaleykum salaam waaw. ak kii sa bokk benn taalibe la Serigne Gueye mi ngi woote Tingeej. Serigne Gueye naka waat Tingeej. waaye dañu kontaan rek xanaa de ku def daal lu lu rëy ñu ne la félicitation. ndeysaan ndeysaan. billaahi ma li si li nga Muhammad Rasulullah bi ni mu am na ñoo xam ne sax ñi woote wut sax ñoo ëpp. waaw ndeysaan ndeysaan. parce que daf dafa ñu fàttali lu bari boo gisee xale yi sax li ñuy réer nii dañoo xamewul dañoo dañoo réere mbir euh, euh, ki yàlla yónni. ndeysaan Muhammadu euh, Rasulullah wax dëgg yàlla fi dafa mel ni ab film man am na question bu ko laaj sax ko laajal <laughs> mooy noo ko doon préparé mais macha allah. ndeysaan ndeysaan su ma su ma nga su ma sañoon ma. ñu ma ko wax sax waaye li xale yi wax naa ma ne toj nga fi toj nga fi wax dëgg yàlla. ndeysaan nga te nga te nga baal moo ko rek. baal naa la baal naa la baal naa la amul benn problème. yàlla langage su jamono la sama xol dafa fees. parce que ñun ni ñu ko doon suivre. sax ci añ bi. waaw est-ce akbar. macha allah ma parce que lii moo ñu manqué parce que ni ñi El Hadj Abdou Sakho boo gisee ñi ak ay waxam di fi des ba tey. waaw loolu la gars yi di nga gis benn. jàkk boo xam ne da ngay gis atum lëmm atum lëmm duñ fa waxtaanee lii. waaw allahu akbar te lii dafa baax bu ko xamee rek duñu keneen dootu leen mën a réeral. ndeysaan ndeysaan ndeysaan dëgg la jërëjëf waay jërëjëf Serigne ci ci Tëngéej moom tam di ànd ak ñun jotaay bi xam naa ne Oustaz Tayul Fall ñoom ña nga foofa ak ñoom Issa suñu Issa Kébé ak suñu mbokk ma di sëñ Mansour Gueye mbokk mi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah. Oustaz Moussa la Diallo. Moussa Diallo Sannar. waaw réseau bi moo baaxul. waaw noonu la noonu la Moussa Diallo wàññul dara. Euh, Oustaz Mouhamadou Rasulullah bi nga fa tolloo. waaw. dama jàngaat ni ndekete suñu borom. Mhm. lépp lu ne ci alxuraan dëxëñ na ko ci jundu yonent bi salaa salaam. allahu akbar. ndaxte bi ngay wax gàddaay bi. waaw. daf ma jox suñu immigré yi bu ñu jógee fii dëkku jaambur. waaw. ndax fii moo neexul moo tax ñu dem dëkku jaambur. ndeysaan. te bu ñu sotalee dañuy dellu si waat. ci muy wone gàddaay yonent bi sallallahu alayhi dem be dellu si. waaw bi ñu koy woyal talaxal. talaxal badru alayna. wallahi lazim ma jàngaat ci leneen tamit. Mhm. mu yóbbu ma ci defar jikko. ci lépp nekk ci Muhammadu Rasulullah bi bi ko sunu borom di wax ci alxuraan tamit. ndeysaan mu dellu ci keroog bi mu naan man maa leen laqad jaakum rasulan min anfusikum. ndeysaan. ma jàngaat ni kon foofu ñun war nañu defaraat suñuy jikko. dëgg defaraat suñuy nekkin. Mm-hmm. ndegam yonent bi salaa salaam dafa am ku daan tibb mbalit di ko tuur buntu këram. Mm. bi mu ko gisatul dafa dem seeti ko. ndeysaan kon yaakaar naa ni ñun war nañu defaraat suñu jikko. incha allah yàlla ma jàngat ci leneen tamit. Mm-hmm. mu delluwaat tey ba tey ci alxuraan. ndeysaan ma gëm ni kon sunu borom bi mu naan iqra bismi rabbika allazi xalaq. waaw waxul ak yonent bi ñun lay waxal. tey ndaxte bu ñu ne nee xayrukum man tàllamal qur'aana wàllamahu. Mm. ki gën ci nit ñi mooy ki jàngaar xante di ko jàngale. Mm. te Muhammad salaa sallam nekk gën gi mbindeef hmm. kon warul mun a am sëriñ tey kon iqra bismi rabbika lazi xalaq boobu ñëpp ñoo ko ndeysaan ndeysaan jàng jéem xamaat lan la suñu borom wax lay jéem a xamaat <laughs> suñu mag ñi comme ni ngeen ko defee tey am na solo sa yal leen yàlla fay amin Moussa Diallo azim faanaa leen yal leen yàlla fay koo fan fànn la wallahi jërëjëf Moussa Diallo Sannar jërëjëf El Hadj Samba Diagne tabarkàlla bu moom tam yore daaw bu am solo boobu tabarakallahu jërëjëf moom tam ñu ngi koy nuyu waaye da am na ko ne ci yoon wi di waaj di ñëw asalaamaaleykum waaleykum salaam yaa ustaz bisimilah waaw na def maa ngi fi rek ndongali la dëkk Tëngéej ndongali Tëngéej waaw mooy ndong ndongali la daal xel ataaya ji fële rek ndeysaan waaw foole na de bi nekkee Màkka ak Medina ah, wax nga dëgg de waaw na def ñu ngi fi rek yaa ngi am jàmm ñu ngi sant alhamdulilah tabarakallah waaw tafsir bi moom macha allah lépp neex na. ndeysaan ndeysaan lépp neex na. est-ce que Muhammadu Rasulullah daal bi ñu ko mujjee. Ah. sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. ndax yàgg nañoo déglu ay gàmmu. waaw yàgg nañoo seetaan gàmmu. Mhm. mais ni nga ko benn benn weralee. ndeysaan dañoo gën a jege daal macha allah. allahu akbar. waaw yéen daal dañ di ñaanal yàlla guddal seen fan. amiin defal leen xéwal. amiin loolu dong jërëjëf tabarakallahu ci suñu alaaji la bokkoon suñu mbàkkee ñu bokkoon nekk ci onze douze euh, mu daan def bu lawalee indi bu déchets mi indi macha allah ci suba gi ngoon gi yàlla na yàlla sàmm la te fay la jërëjëf yàlla na nga ajiwaat màkk noo ajiwaat am na mbokk mu ne ci yoon wi asalaamaaleykum kon kooku mi ngi waaj di ñëw tabarakallahu di fas yéene ñëw quinze heures ma jot ba teg vingt huit minutes asalaamaaleykum. waaleykum waaw. mu fa lay woo sa tax kilma xam moom lay woo. Eh, eh, sama xarit. walaay walaay yaa ah sama nga aussi. waaw tabarkalla sama xarit nga de. wax dëgg yàgg yàgg naa lay woo de. walaay ndeysaan. maa ngi def maa ngi maa ngi jàngale alxuraan ci dimanche. dëgg la dëgg la. voilà bëgg nañ ngir alxuraan karim. walaay ndeysaan. parce que waa Kalaw tax si ba maam maa ngi doon topp maa ngi doon topp baax a baax. ndeysaan ndeysaan. waaye man daal li ma la wax oh, gaa ah ñooñu de si moom marqué nañ ma lool ma macha allah. wala si numéro bi lay wax nga dëgg. wala si ma xëy na moom daal sëñ bi moom daal ba mi ngi si tolloo daal. Ah. maam doon doon nga keneen si man moom wax dëgg yàlla yàlla xam nga. ndeysaan dëgg la de. man daa daa bëgg Mouhamad ba nga xam ne. sallallahu alayhi wa sallam ñëpp ñaar Mustafa rek dama bëgg yàlla xam nga. bëgg nga ku bëggu. rawatina soxna yaag taalibe yaag sahaba yaag xulafa yaag ñëpp rek. ñëpp rek wala si na maahu. wax ñooñu daal ñooñu daal sëñ bi yàlla na yàlla fayal lu leen. amin amin tabaarkalla alxuraan alxuraan nag moo mel noonu. wallaay ndeysaan. man sëñ bi alxuraan dama cee dama koo bëgg ba nga xam ne. ma hmm. yàlla baal dama ci am dama dama ci am amu ci am amu ci tam daal. dëgg la waaw góor. bëgg gi ma bëgg ma bëgg alxuraan. ak uh-huh. bëgg gi ma bëgg Muhammad alayhi salaatu wa salaam. Hmm. aw ma cim aw ma cim xam yàlla xam na. waa ji de xul wallaahu ahad la bëggoon sunu war yónent ba ne ko yàlla bëgg na la bi nga bëggee saar wi. wallaay wallaay kon na ko bëgg alxuraan yëpp moom beneen affaire la. ah man de wax dëgg yàlla bëgg naa alxuraan moom. jërëjëf Serigne Modou Diakhaté jërëjëf. xam naa nag xam naa ah, ma ma ma bëgg ci ma ba tey bëgg waaye ba tey maa ngi koy bëgg dëgg la de. xam naa moom lu jot yomb la. li <laughs> ndeysaan. waaye jàpp nañu sax boo déggee moo war ci rajo ak ak moo war jàpp nañu sax xaritu Aliou Sall woote na. dëgg la dëgg la noonu lañ koy déggee bu soob yàlla. wa tabaarakallah maa ngi siyaar ñëpp. jërëjëf inna allah maana mbokk moomu tabarakallahu mu di sunu xarit euh, sëriñ Modou Diakhaté tabarakalla bëgg alxuraan yàlla na alxuraan bëgg suñu borom tabarakalla boole na alxuraan bëgg nu ñëpp tabarakalla na wala si na maahu ji moo ko marqué lool tabarakalla am na ku nekk ci yoon wi mu ngi waaj ji ñëw tabarakallaahu bañu ma seen toll fii nag la yaay Maodo xamoon ndeysaan sëñ Mbàkke ne daal ñëpp a ngi woote moom munta woote ndax munta jàpp ci saari dara lu tax dugalul ñu ko ci daara daal di xam ba añut suñu bàjjin ba yaayi Maodo tubaarkàlla <laughs> am na solo ndeysaan am na solo lool macha allah xam naa ñu fàttaliwaat numéro bi rek 88 628 98 98 33 841 22 33 bu dee ñuy wootee bitim réew ba ñu demee ba 15 heures jot na ba teg 31 minutes ci Sud FM seen rajo ñu mm-hmm. nii oustaz bisimilah mbokk mi asalaamaaleykum waaleykum salaam yaa oustaz waaw Sall ñu ngi lay siyaare. maa ngi la koy delloo. kii xaritu Mbacke la Assane Samb. Assane Samb da nga def. kër Babou Ngone. wax nga dëgg de. yaa oustaz bég nañ ci yow. Assane Samb jërëjëf. waaw di bég ci sunu xarit boobu toog. wallaay ndeysaan. moom ku baax la wax dëgg yàlla. tabaarakàlla. waaye oustaz. Hmm. yaa ayyuhal lazina aamanu. Hmm. in jaakum faasiqun bi nabba'in. fatabayyanu. fatabayyanu. wallaay ndeysaan. oustaz oustaz tafsir bi ndeysaan. kéemaane na jërëjëf jërëjëf yàlla nañ ci àgg ak jàmm incha allah kéemaane na baax a baax a walaay ndeysaan moom ñu ngi lay topp rek saa su nekk dëgg la dëgg la dëgg la waaw di la siyaar bu wér a wér nag incha allah incha allah di la jottali it nuyoo waa kër Baabu Ngoone yëpp rek maa ngi leen di fay nuyoo ñoom ñëpp dañ lay déglu bu baax a baax a baax ndeysaan ak sama mbokk bu ñuy wax Pape Camara Pape Camara waaw waaw tafsir bi daal mo tubaarkalla lépp am solo rek jërëjëf jërëjëf gën nañoo xamaat kan mooy sang bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu jërëjëf mbokk moomu kon dese nañu 28 minutes ndax 15h32 jot na fii ci Studio Sud FM seen rajo mbokk mi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. Euh, oustaz maa ngi leen di ziar maa ngi la koy delloo. di ziar ak euh, Oustaz Alioune Faye. fooy wootee. maa ngi woote fii Dakar maa ngi nekk nii booru ministère intérieur. Ah, góor. maa ngi ñaan yàlla lépp li ma jàngale. waaw. ci ñu dégg ak lu ñëwagul yal na ko yàlla nangu te ful ko ci njaboot lislaam amin amin ñu bokk te man de leen rek laa wax ndekete ñun amuñu temps hmm. inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi hmm. kon war ñoo topp gémmiñ di selaw mbaa suñu xel yi di nelaw cëy wax nga lu am solo wax nga lu am solo yaa ayyuha allazina amanu uzkurullah zikran kasira kon ñun est ce que am nañu temps boo xam ne war nañ waaw lamiñ ñi tala wala suñu xel yi di nelaw cheikh al di daan wax ni li feeg jàpp wuñ la ko dof ah. zikaragoo allahu akbar allahu akbar wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf mbokk moomu tabarkalla di woote ca Dakar ca boori ministère de l' ñu ngi koy nuyu nuyu ministère de l' intérieur tabarkalla jot li ko sunu nuyoo tabarkalla euh, mbokk mi asalaamaaleykum allo waaleykum salaam. ñoo ngi sant. jàmm rek. Youssouf. Jilika. Ah, Jibika. Jibi na nga def. fooy wootee. Jibi bisimilah. Gaaram Géej. d' accord <laughs> na ngeen def ngi sant yàlla baax. alhamdulilah tabaarakallah. tabaarakallah. Mhm. di ziar rek. yal na yàlla nangu ziar. di kontaan jërëjëf. nuyul ñëpp ñu ngi lay dégg. jërëjëf jërëjëf kon mbokk moomu di jibi ka di woote ci Caaroy nee na ca euh, pàkku soble la nekk mi ngi ànd ak ñun jotaay bi bi ñu ko tàmbalee léegi mi ngi nuyu suñu mbokk Oustaz Alioune Mbaye nuyu suñu mbokk Alxaaji Sëriñ Mbàkke Sylla mbokk mi asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah bisimilah Alioune Badara Cissé Alioune Badara def maa ngi sant yàlla bu baax. waaw kay ah yooyu Badara Ndaanaan ñu ngi jéggalu ñu ngi ziar bu baax. tabaarkalla damaa damaa defoon yaay mbokk moomu Aliou Badara Cissé men. ah mu mag mi. waaw. yooyu kooku moom mu ngi ci beneen waar. médiateur. moom it ñu ngi koy nuyu. d' accord. di di nuyu imaam imaam Alioune dëgg la. ak Oustaz Mbacke moom sa wet. ñu ngi lay dégg. di leen ziare yéen ñaar di rafetlu jataay bi. ak la jaaroon ci suba Euh, safar gi ñu ngi ciy ñu lool di ci rafetlu. jërëjëf jërëjëf. yitte yëpp jëm ci diine. alhamdulillah yal na yàlla sunu borom mottali leen lépp. amiin amiin ñu bokk. da def ci barke. amiin ñu bokk. jaay na bi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. tabaarakalla tabaarakalla. alaa dañ doon woote rek pour rafetlu ko. jërëjëf jërëjëf. waa kay jërëjëf. jërëjëf mbokk jërëjëf mbokk yëpp tabarkalla ñuy dugg ak ñi tocc toccal te jotaguñu ak si ñu ngi leen di xaar ci 88 628 98 98 mel na ni am na koo xam ne kii ma nga ne la ci yoon bi di ñëw asalaamaaleykum allo allo. waaw Oustaz ñoo ngi siyaar. ñu ngi la koy delloo. ñu ngi lay jërëjëfal bu baax ci ci ci tafsir bi kontaan nañu wax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. ñu ngi lay woowee depuis Ndar Abdou Khader. Abdou Khader na def. ñu ngi sant kay bu baax a baax. yaa yaa ngi ndar. waaw ñoo ngi ndar. la man de wala jéem daal. Hmm. moom moo ma daaneel moom. ndeysaan ndax dama xam ni sang bu teel ne yonent yàlla Muhammad. Hmm. ñu ne li mu jël si soxna yëpp benn kese si doonoon jànq. ci. loolu lu day kéemaan la. ndeysaan ndeysaan. ndax fii suñu jamono fi mu toll nii kuy jël soxna li lay njëkk laaj ndax jànq la. ndeysaan. donc loolu rek jàngale la boo xamante ni. ndeysaan war nañ ci xoolal ñu xam ni ñun ñëpp a yem fa yàlla. wallaay man de maa ngi lay ñaanal wér ak gudd fan maa ngi ñaan àjjuma woo tafsir rek yal na nekk fukki at yi yi doole. <laughs> amiin waay amiin amiin amiin diiru ba nga tàmbalee léegi. amiin jërëjëf. di gërëm tamit sama benn xarit boo xamante ni. Mm-hmm. wax ma dikkee moom moo tax may déglu oustaz ndax moo ni ma jël déglu oustaz. ndeysaan. mu jigi ba ñaga ba am na koo xam ne su ma waxee rek mu ma yow Oustaz Alioune Sall da ngay déglu ñëw di répété waat mu ngi ko wax ba tey ndoon mm, eh, ndeysaan jërëjëf jërëjëf ñaanal wér ak gudd fan kontaan nañu bu baax kon suñu Abdul Xaadir nuyul ñu waa Ndar te nuyul ñu ma dikkee tabarakallahu ñu ngi ànd ak yéen jataay bi te di ci bég 15 euh, heures 37 moo jot ci studio Sud FM seen rajo kon keneen a nga ne lee asalaamaaleykum allo. waaleykum salaam. waaw. Euh, ana sama xarit. mi ngi nii. Euh, maa ngi leen di jaar seen xarit yéen ñëpp. jërëjëf. sëñ la Mbaye Sall. waaw kay naka waa Diourbel. ñu ngi fi ñu góor a Baye Fall kër Chaga di woote ci Diourbel. <laughs> waaw. <laughs> ma euh, seen xarit yéen ñëpp rek. waaw moom kay wér na cëng. gëj woote gi moom maa ngi koy jégalu waaye. walaay ndeysaan moom wuutewu ma moom. yow kay yaag maam Mor Jappad moom. <laughs> wuutewu ma benn yoon suñuy xarit ngeen. ak euh, la foofu foofu mbay euh, Mbaye daane la sànq yëpp maa ngi koy siifal. walaay muy lu lu am solo lu lu daw yar. dëgg la dëgg la. waaw di leen ñaanal gudd fan ak wér. yàlla nañu ko bokk. ak yokkute ak télévision. amin waaw di leen kontaane rek. di leen ñaanal di sàkku seen i ñaan yëg ñaan yi am na solo lool incha allah incha allah jàng na am jëf yàlla nañu yàlla defal dégg ak toog jërëjëf góor ak a Baye Fall ci di woote ci Jurbel di ànd ñu jotaay bi tey dugg ci wax sa xalaat ñuy dégg xalaatam yi di am solo lool macha allah yàlla na yàlla sàmm la te sàmm suñu xar bi di Mamor Diapad waaw aleykum salaam man la Diagne dellu si naa mais dafa am lu ma la fàttee wax rek Diagne waaw lii ma lii ma gën a marqué man waaw mooy le premier ambassadeur à Médine. ndeysaan ndeysaan allahu akbar. su moo tax jotaayu waaw. daf ma marqué bu bisu tey bi daal laa woon am na solo am na solo. jërëjëf jërëjëf jërëjëf kon Mbacke bokk mu mu nga noonu tabarkàlla ndax xam nga Musab ibnu Umayr ni ko yonent bi tànne ak na mu ko yebale ak liggéey ba mu ko liggéeyal lu mat ñaari at mu liggéeyal ko ci juróom-ñaari fukki jullit ak ñaari jullit yoo xam ne daanaka mën nga ne ñëpp ko mag kenn ku nekk dugal dugg ci diini ji dugal ci sa njaboot dugal ci sa waa kër yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi ko nuyusee gaa yi ne ko waajal fekk si ñu ñu ne ko bokk boo nu fekk si tabarkàlla nu aar la jàppale la 88 628 98 98 15 heures moo jot ba teg 40 minutes daanaka dese nañu vingt mbokk bi salaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. Oustaz. waaw. waaw ah, Oustaz kontaan nañ trop macha allah ci tafsir bi. jërëjëf ah xalil nag waa Paris. waaw waa Paris ñu ngi fi rek di la namm. ñu ngi jàmm maa ngi ci ce que ah est-ce que loolu day am dinañu neex. <laughs> ndeysaan nañ trop si si si si tafsir bi. jërëjëf jërëjëf. tafsir moom surtout bi nga gis Muhammad Rasulullah. Ah. daanaka toog nañ ay chaque vendredi toog di gàmmu. ndeysaan. te dama déggoon Oustaz Barham Diop rahmatullah alayhi. Mm-hmm. mu waxoon benn waaye laajoon ko ne ko yéen Sénégal ñu leen colonisé. waaw da nekk quatre vingt dix pour cent de musulmans loolu lan moo tax. Mm-hmm. mu ne ko ñun gaamu gaamu yi ñu fi bàyyi ak màggal yi ñoo tax. ndeysaan. <laughs> waaw moo tax euh, Mouhamad Rasulullah moom am na solo trop te yow daal yaa sunu Cheikh Moutawalla Cha Moutawalli Chawraawi. <laughs> ndeysaan. <laughs> yow yaa sunu sunu yow yaay bu yow yaay bu Sénégal. waay waay amiin waay amiin. amiin waaw voilà waaye génn na xaraja waaye Karaja génn na waaye ñu ngi fi boo <laughs> dëgg yàlla moom xat maata bi moom am na solo trop. jërëjëf jërëjëf. ñu lay ñaanal gudd fan toog déglu ko pendant vingt ans trente ans. amiin ki dix ans sax dix ans dafa tuuti. amiin amiin ñu bokk amiin ñu bokk. yàlla na yàlla may nag bàyyi ma ay jàmbaar yoo xam ne dinañ ko jël def ko ci ay téere. waaw ñi ah, gaañ gaañ a ngi ko topp ka def yëpp incha allah di ko def ci kale yeeg ñoom seen yooyu jombul lañ ko def ci ay téere incha allah. yàlla taxawaay. amiin amiin. mbokk moomu xalilullahi kan la tudd ma nga ca Paris di ànd njataay bi tabarakallahu di wax ne moom tam jëriñu na ci tafsir bi wàcc na suñu laay juj di ay 29 muhammadun rasulullah mel ni am na ku nekk ci yoon wi asalaamaaleykum allo. salaamaaleykum waaleykum salaam. sëñ Aliou eh, Sall. waaw. Tëngéej laay wootee. Tëngéej naka waa Tëngéej. Eh, tafsir bi dafa am lu bare lu may fàttali. Ah. Eh, ndax Ndar laa dëkk. waaw. wante Tëngéej laa ne. waaw. 1957 xaw na yàgg. waaw xaw na yàgg waaw. dafa am sama benn ni yaay bu doon tabax këram. waaw. ba mu tabaxee kër ga ba kër ga sotti. waaw. keroog buñ fay wàcc fanaan si. waaw. maçon ba ko doon tabax nekk afisu alxuraan nag. waaw. fanaane tare alxuraan guddi gi yëpp. waaw. ba biir set. Hmm. buntu kër ga. waaw. mu bind fa inna fatax naa. cooy. ba léegi. ndeysaan boo fa demee bind baa ngi ci buntu kër ga. allahu akbar loolu marqué na bu am solo ba noonu. muy Ndiolofène. waaw. ci Ousmane Sy. ndeysaan. ah sama nijaay jooju sax. waaw. e sa goro la ndaxte Serigne Idrissa Lay. waaw. moo koy jox njaam. Ah, wax nga dëgg nag. ma ngi tudd Alaaji Amadou Wade. ci Njolofeen waaw tabaarkalla wax nga dëgg ñooñu day xam naa leen. naa fa tax naa booba xale tuut lañu ndeysaan waaye bi ma bi ma eh, tafsir bi ma ko toppatoo laa dool xam lan la. ah ndeysaan ba léegi buntu kër gi innaa fatax naa. innaa fatax naa lakk fa xam mu dama naan Ousmane boo dund pour kër rek innaa fatax naa. ndeysaan rek mooy buntu kër ga. <laughs> waaw moo tax bi ma koy booba ba tey. Uh-huh. daaw ba tey maa ngi koy toppatoo ba léegi tey jii. ndeysaan ma door a xam nag lu tax ñu bindoon fa innaa fatax naa ca buntu. allahu akbar. jërëjëf ñoo ngi lay nuyu baax a baax di nuyu waa Tëngéej Jibi Njaay laa Jibi Njaay Jibi Njaay jërëjëf tabaarakallah ñoo ngi ko waaw jërëjëf ñoo ngi koy bëgg bu baax a baax Jibi Njaay moom nga xam ne mi ngi doon woote kon ci Tëngéej di ànd ak ñun jotaay bi kon dégg lim wax ci fatax na kon sëñ Mbàkke euh, mu nga noonu 45 minutes mooy bëgg a jot 43 jot na ci ci Sud FM seen rajo ginnaaw 15 ñu xaar kii. allo salaam. Oustaz na nga def. maa ngi sant yàlla bu baax. mu ah, mi ngi rafetlu tafsir bu baax baax. jërëjëf. di si kontaan. jërëjëf. man mu Mouhamad Rasulullah. fi hmm. si gën a daawal mooy. waaw. ruhamaa baynahum. allahu akbar. xam nga lu la la ma jàngal. ah. nan la ab jullit di amee coxate morom ja. warta nekk de. warta nekk de. loolu daal moom moom si gën a jaaxal lool. lool dëgg dëgg la dëgg la dëgg la. ndax bu yàlla neex ruhamaa baynahum. yow ma xool sa moromu jullit. ndeysaan. am ak nit bu nekk boo ko dencal. ndeysaan. yow mbaa ko diine wala sa ah, lu wér nga wax. man na loolu daal jaaxal na a lool. ndeysaan wala si na maahu. waaw. tubaarkàlla. asidaa wala kuffaar. ruhamaa baynahum wallaay ndeysaan. man li ma def mooy. boo amee sa benn coxor. Hmm. gu jëm ci sa morom ni yow. Hmm. su ko nee auto exclure ci diine ji. ndax yàlla moo ne profil bi kat. boo mm-hmm. amee yonent bi profil bi nii la. ndeysaan. kon boo amee soxor ci sa moromu biir. mbaa mm-hmm. yow refusé woo ko. ndeysaan. foofu daal moom moomu ci gën a marqué marqué marqué. maanaam boo xam ne booy daal oustaz. Mm-hmm. man loolu daal moo ma marqué lool lool lool. jë jërëjëf jërëjëf. ndax foofu daal moom. balaa ñun ñëpp liñ ci war mooy. Mhm. kenn ku nekk. Mhm. ku di jullit. Mhm. yërëm rek. ñu ko amee. jërëjëf. ndax na lañu. bi sant. moo daal moom maa ngi ñaan ñëpp ñëpp ku dégg ci ci tafsir beeg. yërëm jullit. ku ne la war a nekkaloon sa waay si ñëpp di ñëgg. nga soog ba ñu dégg ñëgg bi ab yërmaande jëm ci moom. wallaay ndeysaan. loolu la ngeen di jàngal. am nañ fi genn dëgg la jërëjëf jërëjëf jërëjëf daan oustaz Alou waaw ma ne képp ku ànd ak ay nit mhm. loo leen yilif yilif yilif yilif mhm. boo leen nawlawul di ngeen dem ci lu wér ndax sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam fi ma rahmatin min lay lenta lahum différence bi am ci ci digganteem ak saxaaba yi ci wàllu maqaama mhm. ak ni mu leen joxee cër loolu la ma jàng mooy képp ku amul nit loo leen jiite jiite ak boo leen jërëjëf mbokk moomu jërëjëf mbokk yëpp dañu fi ne am na genn gan léegi gu ak si sànq dugg ci studio bi Adja Ndeye Mbuub asalaamaaleykum. alaaji. ah waaw yow naa yow da nga déglu da nga déglu tafsira. ah, ah yow. de kenn mënuñu bañ a déglu ci Sénégal. <laughs> déedéet waay. <laughs> yéen si dañ leen ñëpp leen di déglu. ndeysaan. ndax liggéey di wax euh, teg ngeen ko ci yoon. da ngaa ñëwoon ci safar bi. an waaw damaa ñëw ci safar bi. macha allah. safar moom defe naa ne àddina sépp a koy feet fii ñu toll. kon suñu directeur bu ñëlee initiative def ko. Mhm. nii mhm. toute une journée. Mhm. dañ koy sant. jërëjëf. muy bàyyi Omar Gueye. nga xam ne xale la waaye xale bu am xalaat la. xalaatam day rafet. alhamdulilah. lépp luy jëmale rajo bi kanam ak Sénégal kanam Baye Omar mi ngi ci. jërëjëf. ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax. du fa nag wér. amiin ñu bokk. di ko ñaanal it Babacar Touré mi nga xam ne moo sosoon rajo bi. macha allah. yéen ñi nga xam ne yéenay suñuy ustaas it ñu ngi leen di ñaanal nag sàll. Mm-hmm. damay faral naan soo demee Màkka boo gisee ustaas Aliou Sall da ngay gis xale bu tuuti taxawal ko ustaas port bi leen ji ci bind lu mu doon mu expliqué ba jeexal. dem keneen jël. ma ne xoolal ndox sax doo dégg ne jënd nañ ko sax jox ko ko mu naan <laughs> ngeen oyof oustaz Aliou yu mbay Mbacke Sylla yàlla baax na tey ay xale ngeen nag ko gis a sikkim bi ba teg la mag <laughs> xam naa nogo yàlla tax a mag ndeysaan ndeysaan <laughs> jërëjëf te oustaz di xale oustaz ñu ngi lay ziyaare bu baax jërëjëf jërëjëf di ziyaare Serigne tubaab bi nga xam ne moo waral lii ndeysaan jërëjëf ren damaa gis benn ndaw soo xam ne dafa ñëw aj si mm-hmm. kii ne Serigne Touba lay ajal kii ne Serigne Saliou lay ajal. loolu moom ñaari jigéen gis naa leen. yal na yàlla nangul leen. amiin yal na yàlla nangul leen. kon euh, sëñ euh, Mbacke. mel na ni ñu ngi war a yëkkati jotaay bi. ngi koy war a yëkkati tuwaat léegi nu ñuy def. xam naa dañ ko yëkkati te daan day dinañ ñëwaat ak yow ci kanam. fi yaa ngi fekk oustaz di jeexal tafsir bi. dëgg la ci yaatal geek euh, ubbi gu am solo googu. kaddu yi nga indi am na solo. dëgg la ah oustaz di kon mbokk yi daa mel ne déglu nañ tafsir bi. bu ma dégloo ni ñu duggee topp nañ ko ak yow. waaw damaa xamul ne yow mi doon waajal leçon yi ñëw di ko jooxe. waaw biñ la wooyee ne la dégg nañ la. ndax ni ñu waxee ne dégg nañ la. Hmm. noonu nga doon xaar foofu nga doon foofu nga doon diir ngir jam fa wala déet. man sax daf ma daf ma bett ci Euh, ni nu wooxee ak nin ci duggee te kenn ku nekk yëg la ne fii laa ci tollu lii laa ci yëg maanaam man am naa ci loo xam ne tax fawqa na sama njort ci ci ci la ci li ma jëlee ci ñoom euh, ci ñëw ci nga xam ni ñoo ñoo jot a woote donc man loolu am naa ci satisfaction bu am solo am naa ci itam sigré am naa ci mbégte lool macha allah ci ni gaañu toppe jataay bi ak ni ñu doon waxee ne kii ne fi laa dégg kii ne fi laa dégg suñu bàgg mhm. am na solo oustaz kon Mouhamadou Rasulullah baa ngi noonu xam naa bëggu nit ñi bëgg yonent bi feeñ na ci mhm. waaye itam jàngale nga ci oustaz nag ci tafsir bi mhm. jàngale yonent bi jàngaleen woo xam ne léeg-léeg ñu jàng ko ci gàmm yi waaye njàngale mi itam gën naa dugg gën naa jege nit ñi itam ci niveau bi ñu toll xam nga oustaz Mbacké rajo ak former di informer. Hmm, day former di informer. waaw. informer mooy mu jox lay information. Mm-hmm. former bi nag mooy mu mu jéem a dugal ci yow. Mm-hmm. conscientiser la. Mm-hmm. ba nga xam ne da dund lool da naan lii. xamewuma koon nii. Mhm. donc mais euh, ni nga koy defee noonu ba mel ne kuy seetaan film noo koy defee noonu nga xam ne léeg nit ne bi may déglu daa mel ne damay seetaan film. heure bi ki tëddoon ci lalam wala mu toog bureau am concentré wu ne ci yàlla bu gëmmee bëtam. day mel ne mi ngi seen yonent bi ci biir kër gi. di ko seen ci xare beeg yooyu loolu noo koy defee. waaw ni ma koy defee rek mooy sëñ Mbàkke mhm. jël sama temps yëpp ci préparé ko. Mhm. su ma ko préparé ci téere yi ba noppi nag. préparé ko zihniyan maanaam xalaat ci mm. su ma ko doon def tey waaw su ma ko doon jeu film tey nga xam ne nga koy jëlee ci contexte ba mu nekkoon xool noo koy indee fii masha Allah loolu laa bëgg a wax mm-hmm. loo ko mooy dañuy defe ne damay nekk li la fële rek dëgg la loolu loolu Khalil Kane doon wax naan mm-hmm. nekk naan daxal dugg na xaraja génn na <laughs> waaw donc lu laa ci moytu moo tax ma ko doon jéem a defee noonu macha allah muy am solo nag loo xamante ne wax dëgg yàlla jàll na te itam <laughs> message bi am yi itam rafetlu nañ ko alhamdulilah euh, dafa mel ne saar bi bu doon benn benn épisode rek laa indi woon tey ñu déglu ko ku dugg ku ne da ngay wax li nga jàngee ci épisode beeg ni mu la marqué waaw waaye buñ ko toppee noonu ba ba muy jeex noonu la yëpp ni mel moo tax daanaka ku mooy lépp leen marqué alhamdulilah nga xam ne loolu am na solo loolu ci wàllu tafsir léegi nag wan saar nga war a dal maa ngi bëgg dal incha allah saar bu tudd alxujuraat alxujuraat alxujuraat mhm. mooy appartement yi yonent bi dëkkaloon soxnaam yi mhm. mais oustaz alxujuraat googu li tax ma joxoñ ko sax xam nga <laughs> dangaa wax fatxi waaw ba noppi wax xujuraat waaw léegi ubbi nga dugg ci appartement yi waaw léegi tegale boobu noonu mu tegaloo nga xam ne kon sax sax sax na ku doon tabax kër yi noonu lay mel dangay jaar ci bunt bi dem ci appartement yi loolu amut ab sew-sew bu ci nekk ah kay tawxiif la bu wala tawfiq mhm. bu yàlla defal saaba yi bi ñu dajal alxuraan lu tax ñu njëkk faatiha ca kaw mm-hmm. di ko la ba ñëw ci ñaari saar yi mm-hmm. fathi ujuraat mm-hmm. te fathi fataha mooy ubbi na ujuraat mooy appartement yi mbaa ko lu xew kat waaw lu yéeme na de mooy nañ jël caabi fathi ubbee ko xujuraat yi dugg kër yonent bi jàng ko macha allah kon léegi fi mu ne noppi nañ ci jàng ko aslëf waaw jàng wala tiina maahu léegi nag ñun ñoo moom suñu wàll mooy nan nan lañ war a comporté woo moom ci biir appartement yooyu mu nekk très bien léegi nag sunu war ne ah laa tuqaddimu mhm. bayna yaday lay war a léegi nag am leen teggin yéen a ngi ngi ci biir appartement yi mhm. am leen teggin mhm. léegi nag teggin yooyu incha allah ci lañ bëgg a ñëw teggin yi suñu digganteeg suñu borom bu ñëwee ci yonent bi la laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi muy teggin suñu diggante yonent bi mm-hmm. bu noppee nag daal dugg nag ci teggin mm-hmm. jullit ak morom ja mm-hmm. dëkkandoo nangam nangam yooyu yëpp xujuraat fas ko yéenee indi macha allah waaw am na solo oustaz ci eh, jeexitalu fatx bi ak ujuraat bi nga xam xujuraat bi nga xam ne moom nga war a dal kon itam jotaay bi itam ñu ngi ci catul jotaay bi xam naa ma bàyyi la rek nga daal def say kaddu yu mujj ñu daal di yëkkati jotaay bi kàddu yu mujj mooy jaajëfal mboolem ñu doon déglu jéggalu soxna yi jéggalu sëriñ si sëriñ sëriñi daara yi lu jub ci wax sunu borom lu jubab du lu jub lu ci jub du ma man mi maa doon jéem a ndam na bi jéem leen a wóotu ci jotaay bii pour jéem a def yi ma doon def ndax tafsil quraanu karim du lu yomb euh, heureusement bi nga xam ne ñun téere yi defal nañu li ñu ciy bëgg a def ñun dañu ñëw rek di jéem a nekk li nga xam ne moom la téere yi defoon kon nag incha allah yàlla ñu yàlla may ñu dund ba àjjuma te weesu ko mën na am fekk ñu ci yoonu màggal wa waaye du tee nu mën a ànd ak yéen rek ci tafsir suratul xujuraat ubbi ko introduire ko incha allah tàmbali benn jenn laay ju njëkk ji euh, jëm cee nekk ak yéen di jaajëfal na suñu kilifa yi ne ci rajo bi yëpp macha allah nga xam ne ñooy ànd ak ñun jotaay bi jox ñu micro bi nuy def la ñuy def waaye di jaajëfal suñu sponsor yi nga xam ne ñoom tam ñooy ànd ñu nekk suñu partenaire suñu tàmbalee ñu tàmbaleeg ñun euh, di di di jaajëfal Nicolas mi nga xam ne moom tam saa su kenn bu ñëwee naan ma sa sa sponsor yi may ma ci nangam ak nangam danaa ko ci may ñaar wala may ko ci benn incha allah kon nag sëñ Mbàkke lu jiwu joxul jógu fa ñoo ngi lay gërëm yow tamit macha allah ci omat gi yow amat jataay bi ànd gi koy ànd macha allah euh, yàlla na yàlla sàmm la sàmm nu aar leen aar nu yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara dañ leen bàyyi ci kanam tuuti nag suñu bokk Serigne Mbacké Sylla ci jataay bii di xamtu in uridu ila al islaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wa axiru daawana alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bil qur'ani wa bil imaani wa bil qalbi saajid